seen kaw ak ñi nga xam ni sax dañ koy yëg seen xol di ko metitlu te xam ni ñun ñëpp benn lanu te noonu la ko itam sunu borom digale kuy jullit waaye ku nekk ci beneen diine sax diine yëpp dimalante jàppalante ak di massawonte mooy li nga xam ni mooy suuxa bi ba tax na koon képp koo xam ni rek yaa ngi ci biir Sénégal tey jii baa nga nekk sax biti Sénégal xam ngeen ni biig ak tey wala bërki biig ak tey kenn nelawul ba yàndoor kenn lekkul ba suur kenn naanatul itam ba màndi ngir bàyyi xel ñi nga xam ni tey jii na joo xam ni mu ngi jóge ci sunu borom te moom mooy def lu ko soob e, ñu sant ko nag ci xéewal gi ndax ku nekk xam nga ni ndox xeewal la ba wax na ni sax jamono yi muy wàcc loo ci ñaan du ko delloo kon ñu ngi koy sant ci xéewal googu waaye ñu ngi koy ñaan itam mu woyofal tiis wi di ñaan nag mbooleem koo xam ni soppe groupe Futurs Médias nga téléspectateur u TFM nga baa sax ngay auditeur RFM wala ngay lecteur u journal bi di l'Observateur ñi ngi wax ci turu sunu kilifa yëpp directeur général bi Mamadou Ibra ki topp ci moom biraan directeur technique njaga directeur programme Bouba nduur directeur commercial Ibrahima Dieng directeur ressources humaines Pape Ousseynou Sow ba ci personnel bi yëpp bàyyiwunu kenn ñu ngi leen di tàllal sunu loxo ñu fas yéene àndandoo lu ñu mën ci jëlee ci sunu mbokk yi ñu yóot leen ko te télévision bi nag ni mu doonee seetu Sénégal noonu lay doonee itam incha allah verre boo xam ni day leer naññ lu fi waay indi. daan ko wane fii wala daan ko wax fii mu leer fën koy yóbbu itam daan leen ko wan wax leen ko ngeen ci seen bët balaa may sole nag maa ngi toog ak sama sëriñ sama doomu ndey sëñ Pape Hann moom it jox ko mu nuyoo ñu tàmbalee ndax li nu jot a ànd ak soxna Kebs Thiam bu yàggul rek ci liggéeyam bu am solo boobu ndax télévision yi moom jiitu na ci wàllu solidarité lu jiitu tey ba tax na tey jii kon mission 24 am boobu spécial lay doon groupe bi yëpp fas yéene ànd ak moom looloo tax tey jii ñu ne ñu ñëw taalal ko suñu loxo ànd ak moom ci loolu am na lu leen ci jotoon junj sànq kon ñu joxaat euh, sëñ Pape mu nuyoo bu ko defee ñu tàmbalee nag ndax am na ñu tàmbalee réagir ñu tàmbalee recevoir ñi nga xam ni ñi ngiy ñëw di wuy si sunu woote boobu te xam ni woote boobu du woote groupe Futurs Médias waaye woote suñu borom la subhanahu wa sëñ Pape Euh, mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi nuyu mboolem koo xam ni yaa ngi jàkkaarloog seen télévision Futurs Médias xaaj yi ñu ngi lay nuyu baax ñu ngi lay ziyaara bu baax a baax di leen ndokkeel waaye it nag tabaarakallaahu tey euh, àdduna bi def naa euh, ku nekk jaaxle na. Mm. rawatina nit ñi nga xam ne ñoo dëkkee Sénégal te it la yàlla waxoon rek ne Seydina Mohamed mu ne ko la béykat mu ne ko waxal gaa ñi nañuy dimbalante. Mm. taawunu alal birri nañuy dimbalante ci mbaax. Mm-hmm. dimbalante ci mbaax googu mooy sa mbokkum jullit wala ku dul jullit sax. Mm. raw hmm. nit rek la euh, yonent bi dañu waxoon ni ni mindee fépp njabootu yàlla lañu. Hmm. alxalqu kulluhum iyaalullahi hmm. te ki ci yàlla gën a bëgg mooy ki amal nit ñi njëriñ te xaji li ni nit boo ko bëggee wala nit am problème nit jaaxle nga dimbali ko yàlla lay jël boole la nga bokk ci gaayam yi tabaar fii nag nit ku nekk war na ci profité seen seen télévision Futurs ñëw ànd ak yéen tabaarakallahu war a génne ay moyen am ba tabaarakallahu télévision Futurs Médias ñëw ànd ak yéen waaye ni ko xaji li waxee nga xam ni bi mm-hmm. ñëpp nag war a ñëw mboolem koo xam ni am na yéene mm-hmm. dimbali tabarakallahu mm-hmm. naqar bi nga xam ni moo dal ci suñu bopp ñun ñëpp ndax benn kenn rek boo amee problème yaakaar na réew mépp daañu ko yëg waaye ba ngeen seetaanee lu mat juróom-ñetti nit faatu loo xam ni xéewal bu waroon a wàcc ci ñun muy taw tabarak yàlla ko yàlla def muy xéewal waaye it nag yàllaa ngi xool ay gaayam ndax su ma leen tegee problème bi daañu am nañu ko nañu ko nañu ko muñee ndax su ma leen tegee naqar bi wala ma teg leen problème bi wala ma indi leen mbënn mi ndax ñoom seen daañu am nu ñu ko réglé. Mhm. ndax jàppante bi dëgg la ci ñoom. Mhm. ndax bëggante bi ñuy wax dëgg la ci ñoom. lii épreuve la. épreuve la boo xam nag war nañu examen bii nag ñu passé ko. wallaahi ba xam ndax nag. Mhm. jullit gi. xam ne ay fondement am juñu nga ko léegi. àndandoo. dimbalante la waaw waaw waaw. àndandoo jàppalante la. àndandoo itam. yëkkateendoo yëkkateendoo kon nag lii épreuve la ci te it te it xaj euh, yi li fa ngay dégg ne yërmande yàlla day hmm. feeñ ci suñu biir yërmande yàlla googu nga xam ne hmm. dañ naan yàlla borom yërmande la hmm. waaye ci biir yërmande yàlla xaj yi li yàlla wax a jamaatu raxma mbooloo mooy yërmande léegi am nañu yàlla teg problème léegi bu ñëpp dajaloo nag mm-hmm. ki am dërëm ne man kat lii laa am mm-hmm. ki am milliard daal di génne ne man lii mooy sama participation mm-hmm. ki am benn million ne lii mooy sama participation junni ne lii mooy sama participation am na ñoo xam ne xaj ji li mënuñu dañuy def na ñoo xam ne def nit ñëpp yëg woote ci télévision bi ne man la diw maa yëkkati nangam joxe ko bu ko defee sawarloo ñeneen nga xam ni télévision bi mën nañu jàpp ni ni gàllankoor lay doon ci ñoom. fekk euh, télévision bi yaatal ga roy gaay tax. roy ga roy ga waaw waaw. Mhm. maanaam ki nga xam ni moom xamul ni lii kat war na ci def lu baax. Mhm. ñu ni diw def na nangam. Mhm. masalan tey jii wóor na la ñun ñii lu ëpp ci ñiy seetaan wóor na leen ni. Cheikh Sidil Mokhtar yàlla na fi yàgg te wér te mucc ak mboolem njabootu. amiin euh, Cheikhul Khadim ak kilifa diine yëpp. ñu ngi leen di ziar. milliard boobu ñu wax ni joxe nañ ko. génnewul ci làmmiñam ñam ko jox ci ñoom ñoo ni lii nañ ko war a yëkkati. wallaahi ba àddina bi yëpp dégg ka mhm. ku nekk roy ci moom ku nekk roy ci moom te lu jiitu lii xam ngeen ni bi ñu tegee kori gi rek mhm. porte parole am mhm. Cheikh Amadou Bachir moom Cheikh Abdou Khadir wax na ni ñi mu jëkk indil ay jafe-jafe ca Touba. am na lu leen sëñ bi dimbalee nangul sax wax lim bi te ay millions yu bare la woon kon lii amaat gouvernement bi daa dee ne ñi ngi tàllal loxo mbooleem doomu Sénégal moom mu jàppe boppam ci doomu Sénégal yi jiitu daal di def boobu siiwal g mu koy du ngi Mm-hmm. moom it ba mu koy def deful woon pour xamul sax télévision yi ndax am nañu wala ñu ngi koy wax mm-hmm. waaye lii nga wax léegi nii leeral bi nu koy leeral ak mm-hmm. mbokk yi nga xam ni ubbil nañ leen antenne bi ñu mën a woote wax li ñu yéene def loolu jubluwuñ ci lu dul ku dend ak ñoom roy leen ca te bu leen ca royee yow di nga am yool ci la nga def waaye kala roy itam da ngay dana am yool gu mat waaye da nga séddoog moom itam kon sëñ Pape dafa mel na am na ku commencé réagir moom it uh-huh. yegg si na léegi te sunu mbokk étudiant la muy exemple bu am solo xam naa dañuy ñaan ñu indil nu sëñ Fallou Guèye mm-hmm. moom it mu yegg si fii incha allah muy lu am solo loo xam ni. wax mm-hmm. dëgg yàlla njool it royukaay la ci ñoom ñi. ndax mënoon na ni man étudiant laa. Mm-hmm. Euh, bourse rek laa am. Mm-hmm. Euh, sama loxo sax jotul sama gannaaw. waaye ji def na jëfu jullit. jëfu jullit wallaahi wallaahi jullit sama mbokk yu jullit so soxla nañu samay mbokk sénégalais soxla nañu. dégg naa ko ci télévision bi daal di sol sama daal. maa ngi daw ñëw daal di kii kon sëñ Fallou bisimilah mën nga allah mën nga yegsi jàll seen nii waaw. ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar waaw. jërëjëf waaw kii woon xam nga mhm. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne euh, jullit bu déggee lor mhm. euh, trois dimensions moo si am mhm. soit la dimension psychologique mooy nga xelal nit ñi naka la ñu a def ba dimbali ba lor bi dañ wala bokk nga bu fekkee ne à la dimension économique nga génnee sa xaalis nga joxe ya a aussi ce qu'on appelle la dimension physique bu fekkee amoo loowu nga jéem sa doole man de depuis démb euh, bi affaire bi amee ba tey dama xam la moo tax Sénégal takkul naka ne lii moo tax parce que mm. Sénégal bu lor ñëwee rek ñëpp ay ñëw taxaw mm. day xol yi di ball ak mm. leer euh, ndox boobu moo tax naka ne Sénégal du tàkk naka ne solidarité boobu moo tax ñu ne lii am yeneen dëkk yi a am fii parce que yërmande gi moo tax mu ne depuis bi ma gisee dimi affaire bi étudiant la ñenn laa mën a au moins mbokk étudiant yi je en masse euh, de migration moo tax ma ne léegi su ma

barakallah sànq rek ñu ngi koy junj waaw. wallaahi la sëñ Babaan. wallaahi macha allah léegi. jërëjëf muy loo xam ne itam wax dëgg yàlla. Mm-hmm. Euh, rëy na. Mm-hmm. lii fi ñu toll nii. Mm-hmm. milliard la. wallaahi ndax yéene gi mooy li am solo. te sunu borom day fay yéene. dëgg la dëgg la euh, nettali nanu. kenn ci mag ñi koo xam ni. adiya dërëmam ci sëñ Touba. dafa dajeeg adiya junne maam Cheikh Ibrahima Fall. sëñ bi ni dërëm bi wecc na junne bi. ndax yéene yi pas-pas yee tax kon sëñ Fallou ñu lay sant bu baax di la gërëm. waaw di ci profité itam di ñaax itam sa mboolem mbokk étudiants yi ndax. ñi amul itam am na nu ñu mën a jàppale ndax mën nga dem fekk fa ñu nekk muy wóor la ni dañuy gas pour fu ndox mi jàll. nga ñëw ak sa doole. Mm-hmm. am koo xam ni la mu yoon mën na jënd peel mu dem jënd peel wala jënd siwo di di di di asle yooyu yëpp xeetu mm-hmm. jàppale la xeetu mm-hmm. solidarité la mm-hmm. bu nu jàpp ni rek xaalis la waaye fànn boo mën a xalaatee ndax am na mbokk moo xam ni ñu koy wax soxna Kumba Sall yónnee na fi suukar su bare Kumba wallaay wallaay wallaay uh-huh. suukar su bare te dafa tëj bërëbam statistique la waaye dafa tëj bërëbam dégg euh, appel mission bi soxna Kebs jiite rek daal di taal otom ñëw fekk na nu fi nuyu naag sëñ Papa nuyu naag ñun ñëpp moom it bàyyi na fi suuka su bari incha allah xam naa ni mhm. ni ñuy recensé xeetu denrée yooyu bu soobee yàlla daa ngeen ko gis ci antenne bi incha allah kon sëñ Fallou ñu ngi lay sant yow tàggoo kon mhm. tamit dinañ gërëm parce que xam nga di ngeen def fii tamit mhm. bu nit ñëwee ngeen ibbil ko lépp daal di ko taalal climatiseur mu toog nekk dans de bonnes conditions loolu yàlla moo ni ko fekk parce que démocratie la maanaam ñi ngi dañu gën a yërëmante yéen ngeen ma yërëmee ba yaatal ma fii tamit yéen ngeen yërëmee lislaam gi di waxal yonante yàlla mooy sallallahu alayhi wasallam yéen tamit yàlla leen yàlla fay jàppale TFM tamit euh, mu jëm su kanam parce que Sénégal bëri bu ñu defee nii rek euh, mm. dëkk bi dina na yàlla jërëjëf sëñ Fallou Guèye kon sëñ euh, Pape lii di lu am solo am solo xaj ji dëgg yàlla ñu bare war nañ ci roy mm-hmm. ndax moom mënoon na ni